salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi waaye rawante na nag bokk yi nga xam ne ñooy taalibe ya nekk Italie góor ak jigéen mag ak ndaw ginnaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram. waaye ñaanal jëwriñam ji nga xamante ne bii moo ne ci kanamam yore kàddoom di Cheikh Mahamadul Basir yàlla na ko sun borom sàmm te aar ko te musal ko ba mbooleem luy yittey mag ñi sun borom dëppale ko ak man-manam ba mu ko matale ñu toog fii nag ci këram mu fas yéene yëkkati kàddu gu bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jëm ci mbooleem taalibe boo xam ne yaa ngi yewoo Italie muy taalibe bu góor ak bu jigéen ak fu mu mën a bokk ndigal lii di bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha saa yoo déggee kaddu Cheikh Mamadou Bassir na nanga jàpp ne ndigal loola yow képp yaa ko moom. loolu moo tax nag ñu àndandoo ak mbooloo mii Serigne Moubarak loo nekk nii ànd ak mbooloo mii mu àndal déglu kaddu yi Cheikh Mahamadul basiir su noppee ñun ñëpp ñu fa maase jëfa ndigal loolu nga xam ne Cheikh Serigne Touba Cheikh Mahamadul Mountakha digal na ko waa itaali waaye jaarale ko ci Cheikh Mahamadul Bassir kon ñun ñëpp ñu maase déglu Serigne bi. bokk jullit rawatina bokki taalibe murid yi nekk ci Italie gépp ñu ngi yëkkat suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mot li mboolem naa yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne kàddu yi nag kàddu yi ndigal la yu bàyyi ko ci moom muy ndigal loo xam ne xam ngeen ne ci màggal Tuubaa gi ci waxtaan bu mujj junjoon naa ci ne incha allah bu ñu àggee ca nawet bi jeex feeg sans sëñ bi sumb na ab liggéey bu rëy ñaari liggéey sax la benn bi jëm ci jumaa ji bi ci jëm ci dëkk bi bu ci àggee rek dana ko wax ci la am nañu bopp ñëpp dégg ko yàlla def na ci liggéey bi jëm ci jumaa ji am ci loo xam ne moo ko tànnal boppam. jox ko ndigal waa Italie gépp wax leen ko ci làmmiñam ngeen déggee seen bopp yaakaar naa mu waxoon suñu daxat moom suñ Murtada mi nga xam ne moom la suñu maamoor yebaloon ne ko bu agsee ci moom ko ko yëgal xamal ko ne ko ko waa Italie gépp muy ndigal loo xam ne dafa jëm ci liggéey jumaa ji kon nag yaakaar naa fàttali rek lay doon ak ñoo ko fekkewutoon dégg ko waaye yéen ñi fi teew moom yéen ñëpp dégg ngeen ci kàddoom dégg ci làmmiñam te Italie moom ñëpp xam nañ seen positif xam nañ seen taxawaay ndax kenn mën kenn mënu leen ci yoon wi ndax ay kër si kër Sëriñ Tuubaa kat bari na ci àdduna waaye bu dee ci Europe ak Amérique li ci ëpp foofa la jëkk sottee ba nag yi fa la gën a bare waxtu ne dama daa fàttali wax ne itali li tax muy dëkk boo xam ne bokk na ci dëkk yi ma gën a bëgg mooy dalay fàttali da ngay mel ne ku ne ci daal di li ci ëpp looloo ko sos dafa jëmbatu nag moo màgg ba nëgëne ñu ci daal di rek moo tax ba nëgëne boo fa duggee da ngay mel ne ku nekk biir Touba moo tax moom Touba daanaka day mel ne Italie ci biir Touba la bokk kon nag sëriñ bi xelam dal na ci ndigal lii mu leen di sant ndax yàlla def na ngir yi njëkk a liggéey fii ci jumaa yi ci jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu koy def waxoon na ne dafa gëstu bañ bañ wax ko ne Italie waa wet googu ñëw ca jiitu kon sëriñ bi moo na ko defal boppam waaye yéene leen ndimbal ak tawfeex mm-hmm. ak xam ne seen positif ndax ab taalibe moom ñàkk jëf ñàkk loxo yi nañ jiw ko mm-hmm. li am solo ci moom rek mooy jëf te xam ne amul wàcc amul nopp la te sëriñ Tuubaa saa su la sante dara it moo lay yombal la tax moom kon na seen xel dal bu baax ci ne lu fa doon ay jafe-jafe ci réew mi rek bu ndigal li accès dana ko yóbbaale kon ñi sant bokk taal bi fa nekk yëpp ndax xam nañ seenu jàmbaar ndax ndigal li njëkkewu ci ci ci ci Serigne Touba jëm si ci yéen waa kër Serigne fi nekkoon rawatina Serigne Saliou bari na loolu ay liggéey yoo am sant nañ ko ngeen def ko ni mu ko bëggee kon loolu xam na ne ndigal li moom samaan wa taaxatan la kon nag Serigne Mubarak yow mi nga xam ne yaa nekk ci bopp mbooloo mi ak ñu ko ànd ak ñëpp nag bàyyiwuma kenn suñ mortu rek suñ maara jenn ak suñ daam lee ñëpp nga xam ne ko ci tudd daanaka ñu fi ne ñëpp xam naa leen naa leen daanaka lu jege luy kon xamantuma leen ku xam naa la kon ñu leen yóbbante bi ak cant ak ngërëm ci bokk taal bi yëpp nag ci ndigalu sëriñ bi dinañ ñaanal li sëriñ Tuubaa daale ci addiya yàlla na leen ci yàlla leen ci fekk ndax moo waxoon ne dana fekk fu dara nekkul mu defa dara dana fekk fu dara nekk mu bari ko dana fekk fu lu bari nekk mu nag ñu ngi leen digal ñëpp kenn ku ku ko ne nga xam ne ndigalu Sëriñ Tuubaa la rawatina ndigal lu jëm ci jumaa ji nag xam ne sëriñ bi moo digle woon ne waxoon ne bu ngeen ko defut tam ay bi yeneen bindeef dana ñëw def ko kon yéene ko taalib yi tax waxoon na ne ku ci feeñ da nga feeñ bu faw kon ku yàlla defal tawfeex ba nga am ndigalu tàbbi ca rawat na muy ndigalu sëriñ bi loolu tawfeex la kon ñu leen di sant bu baax dem gërëm dina ñaan itam liggéey bi ngeen dugg ci jàmm ba mu àgg jàmm ba ngeen jébbal ko sëriñ bi ba mu gisal ko boppam barke suñu Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh naa bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad ñu ngi dellu di yeesal sunub siyaar ak sunub jébbaluwaat ci sëriñ bi di ko teg ci loxob sëriñ Basiiru mi mu àggaleel na ko ci loxob sëriñ Muntaqa sëriñ bi dégg nañu kàddu yi bàyyi ko sëriñ bi jaar ci yow ba agsi ci ñun ni nga ko waxee mu jaaroon ci sa mag ju baax ñu wax sëñ Maam Moor Mbàkke ba agsi ci ñun kon nag li nga xam ne jii moo war mooy noo ngi nangu liggéey bii nga nu jox ak suñu fukki loxo juróom parce que yéene jëfe ni ko sëriñ bu bëggee mbaa nu ko raw nun waa Italie gépp day fas nañ yéene bu nu mënoon a def li wër jumaa ji wurusu ngalam yànqoo danañ ko def loolu daal lan fas yéene la ca nag mooy dimbali leen ba suñ kattan matale ko waaye nun murid Italie yëpp góor ak jigéen ma ndaw maase nañ ci fas ko yéene defe ni ko sëriñ bu bëggee wasalaamaaleykum